Euh, euh, euh, donc Pape Samba bu nekkee mën nga ñëw afficher kon tex bi bi nga xamante ni Magib Sène moom moo ko bind donc euh, Magib Sène donc dama koy lire euh, parce que euh, dama ne woon tàmbali bi il faut ñu gis ko benn kii bu gudd la nag texte bu gudd la mais dañ ci am benn morceau choisi ñu ne c'est une dame très cultivée dont le nationalisme s'abreuve aux sources fécondes de nos valeurs et traditions habituée des cercles intellectuels elle n'évite pas les débats sur toutes les questions qui interpellent l'avenir du pays parce que bien outillée comme le sont les intellectuels de grande envergure Son féminisme ne l'interdit pas d'être souvent aux côtés des hommes pour défendre des causes communes dont l'aboutissement heureux fait aussi bien l'affaire des femmes que des hommes. Son intelligence et sa euh, perception de la vie lui permettent de mener une vie équilibrée dans une société qui, dans bien des domaines, semble s'accommoder des préjugés sur borneurs qui sont d'une autre époque. donc li mooy morceau choisi bi nga xamante ni euh, bu ñu koy tënk moom mooy euh, daanaka jigéen juman man góor boo xamante ni ragalul euh, daanaka joxe opinion mais surtout nekk ci wetu góor pour mën a kon défendre lu nga xamante ni lu objectif la suñu ko mënee tënk noonu ci wolof. jërëjëf ngeen may ma balaa may wax dara comme yéen a génne texte bi wane ko may gërëm Magib Sène nit ku généreux mooy Majib Sène nit ku am mën a am seetlu tey dafa bind ci sama borom kër la bind mm-hmm. mbokkam la texte boo xam bu daw yaram tamit Majib dafa nekk daal koo xam ni dafa xam Sénégal waaye mësuma gis nit koo xam ni du dara nag daf koy def parce que daf ko gëm amul dara loo xam ne nii daf ko ci seet keroog maa ngi fekkee présentation wu livre bu mu def bu ñu def ci docteur Fadilou Diop ah maître Fadilou Diop moom moo doon présenté livre bi mais Magib foo ko fekk wax ju rafet lay wax ci nit. Mm-hmm. foo ko fekk jëf ju rafet lay génne. loolu nag ci Sénégal valeur yooyu ku ko am dañ la war a sargal defal na ko Youssou Ndour mm-hmm. defal na ko keneen ak keneen day seet loo xam ne nii rek day jëriñ. mu def ko comme modèle won ko xale yi kon Magib du ma noppeek di ko gërëm mm. di ko sant ci générosité ak ni mu bëggee yëkkati nit man loolu dafa jafe ci àddina bi léegi waaw mais li mu wax tënk na sa personnalité waaw tënk tënk na ko ndax ba ma juddoo ba léegi ba ma ràññee xàmmee ndax man toggal naa sama yaay te dugguma école rootal naa sama yaay te dugguma école ndax yaa sama yaay yàlla daf ko mayoon ay doom yu góor moo ëpp ci njabootam doom yooyu sama frère yi mën naa ni sama yaay sukk jur la ma ëppalee ci ñoom mm. am na ci ñoo xam ne tey dama mel ni seen yaay waaye dafa daan def lu may liggéey bi ma dalee école ba ma dalagul école lu may liggéey bu ma yoree uppukaay di upp furno pour togg sama loxo càmmoñ uppukaay baa ngi ci sama loxo ndeyjoor livre ngi ci su may upp maa ngi liir liir moo ma gënal jàng sama loso liir moo ma gënal nee naa li lekk ak naan nekkee indispensable ci doomu aadama noon li liir aussi indispensable ci man lu ma am jëndee naa ko livre defe naa su ma tabaxlu étage jënd livre a tax waaw léegi nag kon loolu moom dëgg la man dama gëm xam-xam xaj na aussi yàlla moom ma ci xiir mm-hmm. mënuma def leneen te lu may jàng aussi jànguma ko pour daal dama koy jàng pour sama plaisir u bopp mm-hmm. kon Magib ci côté boobu wax na dëgg mm-hmm. lépp loo xam ni tamit dama ko yëkkati di ko def ci xam-xam laa koy lal su ma ko mënulee gëstu ba xam ko ba ràññee ko du ma ko def wala du ko wax c'est important de façon li nga wax un peu passage li nga bëgg ci livre rek ni nga doon